bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak nabiyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi wa man téer bi mu yàlla na yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñoom idab tuliya buñ ko nattuwee sobora dafay daldi muñ muñ dafa war ci dëppoob xeet bi nit ñi nag jamono bi nga xamante ne wàcc na ci ñoom ay musiba wala bala ci àdduna di ñu xaajale ko ci ñeenti xaj bi ci jiitu mooy mu tafaxit koo xamante ne moom dafay mer ñaareel bi soobir ku muñ ñeenteel bi ka gërëm musiba boobu ñeenteel bi nag ka sant yàlla ci musiba bi dal ci kawam bi ci jiitu mooy mer jamono ba musiba dalee sa kaw lool nag dafa xaram benn bàkkaar la ci bàkkaar yu mag yi mer nag léeg dafay amee ci xol bi wala ci làmmiñ wala bokk ci cëri mer ci xol moom la al imam ibnul qayyim di wax ni mooy doomu ñenn ci nit ñi dañuy daldi mer ba wax ci seen làmmiñ waaye nag xolam moom bi nekk ci biir dënnam dafay seede loolu dafay jàpp ni kat ni ah yàlla daf ma tooñ mu ñaaw njot tamit ci yàlla xolam di wax loolu xolam di wax ni yàlla daf ma tooñ xaala xolam di wax ni yàlla daf ma xañ ah, ak ah, xeetu kàddu yu mel noonu ne mbir lii nag moom ah ñii dañ ciy bërile ñii dañ ciy néewle loolu tax mu war ci bépp doomu adama mu dal di gëstu xolam xool moom mbir moom fu ci toll ndax mucc na wala mucc ci bu ci muccee nag na xam ne mucc na ci mbir mu màgg mer ci làmmiñ mooy yuuxu jooy woo alkande sa kaw bopp woo rëbb sa kaw bopp wax ay wax yu ñaaw jamono bi nga xamante ne musiba dal na sa kaw mer ci sa ay cër mu ngi mel ni doomu aadama daal di euh, mbéj boppam dóor ay lexam xotti ay yéreem Euh, euh, buddi ay karawam jëf yu mel noonu la jamono bi nga xamante ne musiba dal na ko ñaareel bi mooy muñ muñ koo xamante ne merul dafay muñ muñ nag dafa war ci dëppook xeet bi dafa war ci doomu aadama mu daal di muñ ci xolam muñ ci làmmiñam muñ tamit ci ay cëram ibnul qayyim mu ne rahmatullahi alayhi ibnul qayyim al imam ahmed rahmatullahi alayhi mu ne euh, lii di muñ ñëw na ci alquran lu tollook ci tis ina mawdi an lu tolloog juróom-ñeent fukki place lu war la tamit ci dëppoo xeet bi yépp muñ genn wàllu ngëm yàlla la ngir ngëm yàlla ñaari parti la nisfu sabrin wa fa shukur benn xaaj bi muñ la benn xaaj bi sant la ñetteel mooy arida gërëm jamono bi musiba dalee sa kaw loolu nag duñ ko sopp ngir martaba bi moom moo féetee kaw muñ ñeente bi nag mooy sant yàlla jamono bi nga xamante ne musiba dana ci kaw loolu tamit diñ ko sopp waaye moom mooy nag martaba bi gën a kawe bi gën a mat